cheikh na cheikh naama ay dara xalif général de xaadar comme nu mu ko baaxoo di defee ak mu jot di ñëw ci bis bi bu dëgmalee cheikh na cheikh naama moomu moo fas yéene yëkkati ay kàddu jëmee ko ci yow sëñ Bass Abdou Khadr cheikh na cheikh naama nee na ginnaaw bi mu santee yàlla julli ci yenent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi ñëw fii tey Touba di seet si xalif général de murit di sunu waajur dem nañu ci moom léegi la jóge ci moom pour ndokkeel ko ci màggal gi waaye nag kenn du dugg Touba ba génn te jaaroo ci Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké nee ndax tey tey tey ku nekk xam na ni sas bi ko cheikh muntaka alxalif sas ku ne xam na ni sas bu rëy rëy muy confiance bu doy waar waaye tam ñi ko giitu woon tam sasoon ko loolu kon daal loolu lu rëy la ñu ngi ñaan cheikh bass abdul xaadir yan boobule yàlla na ko yàlla oyofal ci yow yàlla na la yàlla jàppale yàlla na yàlla jàppale tarixa murit yépp jàppale tuubaa medinatu tuubaa di bërëb bu sell bile di liggéeyu cheikh xadim bi nga xam ni sumbal na ko sayiduna muhammad alayhi salaatu salaam di doxaat nag kóllëre bi nga xam ni moo nekkoon diggante cheikh na cheikh saad bu ak sunu maam cheikh ahmadou bamba xaadim rasul muy lu doy bi ko tubaab yi yóbboo ñépp ni sànku na ba ñu dem ndar cheikh na cheikh saat bu ni sànkuwul de dem na de waaye bu dellusee jant lay doon seen biir mu ni wàllu bu ne day topp benn yonent day am baatinu benn yonent te am na yonent yi nga xam ni sonal nanu leen toroxal nanu leen te terewul la yàlla bind ca ñoom namm ko ca ñoom yàlla dogal na loolu waaye kóllëre boobu yamul seen diggante ñoom ñaar de mu nekk tam diggante maamam Cheikh Taalib Buya ak Cheikh Mouhamad Fadel Mbàkke mu nekkaat loolu ci diggante waajuram Cheikh na Cheikh Abdoul Aziz ak Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke rahmatullahi aleyhi waaye nag mu nekkaat ba tey diggante moom cheikh abdul ba cheikh bas abdul xaadir bi woy juróom cheikh abdul xaadir mbàkke ak cheikh na cheikh abdul aziz dara ba ci cheikh na cheikh abdul aziz dara diggante ak cheikh saalih mbàkke umpul kenn ci réew mi kon daal tey jii moom dafa war a ñëw fii ndokkeel leen ñaanal leen ziyaar leen wan leen wan leen ni kóllëre googu amoon démb tey jii li ko gën a beesal nee na nag ginnaaw loolu daf leen di wax ni toujours kër sunu maam Cheikh Ahmad Bamba ak kër Cheikh na Cheikh saat bu loolu daal ku xam di nga xam ni boole naan la wala boole tuur kon Cheikh Bass Abdoul Khadr Cheikh na Cheikh naa ma nee na mi ngi ñëw di la ndokkeel xam nañu yow amuloo jot ñu bëgg a ziyaare bari nanu foofu lañuy ñuy kàddu gi di jéggalu ci li nga xamante ni gën na ko guddal kàddu gi ba mu war a wax li mu war a wax lépp waaye daal temps bi moo ko laaj ñu baree ngi nekk ci bititu ko xaar waaye nag gis na sunu wayjur gis na ko moom moom ak moo ngeeg Cheikh Baara Abdou Baara Laat te si Cheikh mun Muntaqa moo ko booleek Cheikh Baaralaat mi nee na kon foofu lañuy yemale kàddu gi sëñ Bas Cheikh na Cheikh naa ma ne mi ngi lay ñaanal gudd fan wér gi yaram yàlla la ko sunu borom defal nee na daal liggéey bii nga yor yàlla na ko sunu borom oyofal ci yow te nag wax dëgg yàlla liggéey bi yóbbu nga ko fu soree sori macha allah nit dinañ la dénk dara xëy nangu loolu sa loxo. waaye yow bi nu la dénkee loolu ba tey yow daal li olof naan mu jëwoo poussé bi mu réer ku ñëw rek feddali na loolu ni yow la parce que bu nekkuloon yow du ñu ni yow la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ sëriñ bi dafa wax ma ubbil ko nga xam naa xay na li may xam ci yow moo tax eh, sëriñ bi mi ngi lay nuyu mi ngi lay siyaar mu ngi lay sant itam yow ak délégation bu rëy bii nga àndal te boo jógee jëm si fii jiital leen doo bàyyi kenn eh, li nga wax sëriñ bi ak li nga ko wax moom mi wax ji jenn la eh, xam la rek ni eh, xaadir tarixa xaadiriya ak muridiya musuñoo umpante ci dara ndax sëriñ bi wax na la ko léegi nee na maam yépp ci xaadir lañ jaar kon sa tànk fii kenn du ne lu tax te bu du woon dara sax du tarixa du du du tarixa yi du sa wajur wa Abdou Aziz sëñ Abdou Aziz ay dara li mu seqoon ak sëñ Saaliwu ak Touba yépp bu du woon loolu lépp yow sa jikko bopp mën na la mën naa tax boo teewee fii mu remplacer yooyu yépp te sallallahu alayhi wa sallam mii seen maam ku tedd la waaye taggam bi gën a siiw jikko la muy wa innaka la ala xuluqin azim du ci tëggee su ko ci julli mën a woor alxuraan déedéet jikko ci la ko yàlla suñu borom takk jikko jooju nag am na loola ci yàlla jox nga jëlee ko ci moom te di ko dox ndax nit ku nit ku ni ci ni ma ko mën a waxee Serigne Bass nit ku larsa ngi nii nit ku baax a ngi nii nit ku bëgg yoon waa ngi nii nit ku leen nit nit nit ku bëgg sëñ waa ngi nii itam te itam moom sama sama sama lépp xam na ma xam na ne lii may wax nii bu ko jëfutoon mënu ko am ndax junni nit toog nañ fi waxaluma leen ko ndax gisuma ñu jëf ko te wama sayid naa illaa rek ah, sëriñ bi yow itam wax dëgg yàlla eh, wax na dañ koy wax foo nekkul lii ñu la dénk li ci sëñ seex eh, naama wax léegi moom mi toog ci bitti xam ko kon yaakaar naa ne ñu nekk ci biir itam fekke nañ ko ñoom ñi ko fekkee moom mi ko dégg xam ko kon ñi ko fekkee xaw ma nu ñu def lii la sëriñ bi dénk ku ko yaatal nga te xajal ci ñëpp amoo jot ci sa bopp ngir ndénkaanu sëriñ bi li war a yegg ci sëriñ bi loo xam ne bu yeggee sëriñ bi ñàkk jot nga téye ko saytul ko ko ba loolu du yegg sëriñ bi yooyu yëpp xamees na ko lu waaye mën a wax itam lii nuy wax xam na ko da koo waxut loolu nag na nga xam ne ñëpp a ko yëg gannaaw ña ña ña toog ca seeni kër ñoo ko yëg ba toog di ko wax asti ñii nga xam ne ñoom nga koy defal yaatal gi nga ko yaatal xajal gi nga ci xajal ñëpp ndimbal yi nga ciy def boole gi nga ci boole ñëpp lu baax li nga ci dox di ko jëf di ko wax te jubloo ci dara lu yoonu murit wii lu ko jëme kanam loolu na nga xam ne ñëpp a ko yëg te ñu ngi la ci sant tam di la ñaanal réussite boobu mu gën a yàgg waaye Cheikh Naama mii daal sëriñ bi nga jàppal ñu ko bu baax ndaxte nit la koo xam ne vraiment dafa dëggu man dëggu li li ëpp ci samay nit dëggu moo ma booleeg ñoom te moom mii mooy la nga xam ne moom booleek ñoom ñii mu àndal itam nga xam ne bu jógee ñu jóg nga ñaanal leen ci barke bis bii ci barkeb weer wii ak barkeb seen eh, maamam ñoom ñii mu àndal muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal leen ay xewal yoo xam ne bu jógatee lu mu fi bëgg ñoom ñu manal ko ko moom mii itam yàlla may ko wér li ci des nag sëriñ bi dana ko yàggaleel bopp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu bu baax euh, sërif cheikh na cheikh Niama Aydara di xalifa sëriñ Abdul Aziz Aydara nga xam ne ñëpp xam nañ ko waaye di setu cheikh Saadu Abi di setu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy delloo am nuyoo bu baax ne ko alxuraan santaane wa isa xuyyitum bi taxiyatin fa bi taxiyatin bi ahsani minha aw rudduha kon bu fekkonte ne am na lu gën a rafet lool yi ñu la koy nuyu di la siyaare bu baax di la ndokkeel ci bis bii nga xam ñoo yow ñoo ko bokk ndax Sëriñ Tuubaa léppam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mahat mahabbati al muxtaar sayidina xubbi almaxaaniya wal ahliina wal walada dami wa ahli wa awlid wa awlaadi alfidaau lahu abdan abdan xadiman lahu muskaana li sanada xaddi wiqaayatun li rijlil mustafa an shawkatin wa xayatin wa aqraba kon loolu fëlëg bëgg mën a yam koo xam ne sa lépp dara génn ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kon fu ñu gisee ku bokk ci moom rek war nañ koo fonk ndax Serigne Touba ku fonkoon darati rasulillahi bokk na ci ay mbindam mimma mimma manna allahu alayna xubballahi wa xubba rasulihi wa xubbal bayadin loolu itam tàbbi ngeen ci biir kon ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di bég bu baax ci nii nga ko defe woon daaw defaat ko ren mooy ñëw màggal si ba noppi dellu màggal si waat loolu ak fonkeel mënu ko weesu kon ñu ngi lay sant di la gërëm di euh, feddali kóllëre gi di ñaan ñu yàgg koo ànd te euh, li suñu borom daale ci istajibu lillahi wala rasul isa daakum laa yuhyikum suñu borom defaleen ko suñ Cheikh yow tam ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci sa yitte ak sa taxawaay ndax yàlla def na Cheikh Sidou Mokhtar moo yëkkatoon liggéey bi teg ko ci sa loxo nga doxal ko doxalin bu rafet bay jël sa alali bopp sax di ci def di ci def sa wax di ci def sa lépp ba làq ci ngërëmam te loolu xam na am na man naa ci seere ginnaaw bi itam ak Cheikh Mouhamadou Mountakha keroog ba mu koy teg ci loxo ñoo maa ko fekke mu yëkkatiwaat lépp teg ko ci loxo nga koy doxalee na ko daa daxa ci dara wala da nga ko yokk ba mooy itam nga làq ci ngërëm mu seereel ma ca bis boobu keroog ni ma moo ne ba muy gone gu tuuti rek la ko yàlla xëy ci mu ñëw fasante man kóllëre kon loolu lépp sama digg yow door yow kon ñu ngi dee sant bu baax di la gërëm di rafetluwaat tam tànk yu rafet yi nga yi nga xam ne yaa ngi koy dox ci diggante yoonu murit ak këri diine yëpp dina ci gën a soññ bu baax ndax loolu ñu ñëpp ko koy defal ndax bu ko sëñ bi mënoon moo koy defal boppam man mii itam moo ko mënoon maa koy defal sama bopp waaye comme yaa ñu ci wut rek te rafetal lépp te ñoom ñu ngi koy seqal ñëpp di ko rafetlu kon loolu yàlla na yàgg. asalaamaaleykum wa